daanaka ay at la ñuy wax ñu di ko jàpp muy yàqu ay at ñu di ko jàpp ba sax nit ñi dañ ne mënuñoo gëm tant que taxawul ba ñu taxaw war a sif la ñu jàpp ne combat bi dina am euh, diggante Modou Lo le roi des arènes ak ki nga xam ne moo di Ama Baldé euh, mu nekk combat bi nga xamante ni ñu bëree nga koy xaar muy combat de tension euh, combat de choc góor gi mu mel ni nag li jot jot na cinq novembre date bi moom leer na li na ko laay xamal ni incha allahu rabbi 5 novembre bi nga xam ne def nañ ko Euh, mu nekk lu nga xamante ni carrément euh, ni ma koy ubbee euh, ma Modou mën nañu wax Ama Baldé mën ne nee na ëmma nee na Modou su ma la teeloon gis du ma def ci yow 1000 francs Modou Lo nee na ko su ma la jàppee komba bi jeex su ma la dóoree combat bi jeex yow noo jàngatee li na mel parce que fu mu nekk nii dafa mel ni amaa yëngal na leen de. non waaw loolu moom yàgg na seen diggante ñoom ñaar depuis Mbapat la ba léegi comme bala Gaye moo ni mu demoon woon Mbapat ba léegi Ama na la woon mais waxu bu si kenn dóor sa doom ay ma gisoon kii ma teeloon gis ma de cent franc gis nga ama waxoo so nag bu ko bis bu ko indee si làmb yi lu ko bett trop. mais ama li mu wax boo ko xool li mu wax nag góor gi am ngeen problème parce que li mu wax ko gëm parce que nee na ko su ma leen teeloon teg bët nii du ma dépense ki yéen 1000 francs mais déggal wax boobu dafa mel ni après Modou Lo sax kii interview xaw na xaw na gis boppam. Modou moo mel noonu mënul daaga santé mënu ko loolu du si moom rek seen famille moo mel noonu te góor amma am na benn maa ngi sax mu ne si biir euh, vidéo bi mu wax ne Moodu benn la ko si wax ko ne ko Moodu yaa ñaar du benn yoon du ñaar du ñett am nga fu ngeen dase xoon yëfu góor la te jour boobu mën naa ko wax jour boobu montagne dunier la moom mi ànd ak def naa ki daanoon garga nu tuddati sax falaay la ma ak yeneen yeneen ay yeneen booy sax ñu seen Moodu di entraîné foofu si dindi ba nga xamee ne kii coow la in Modou Modou mi ko provoqué dafa dem toog Modou entraîné ba ñibbi mu doog a ñëw Modou yegg si montagne montagne bi. mais mais dafa mel ni wekkente nañ fa ay kàddu naan ko euh, benn yoon la ñu mës a dajee xaw ma kërëb kërëb ki nekk ko du benn du benn du ñaar xaw ma. ma ne la wallaahi Azim daje nan ay yoon yu yoon yoo xam ne nii Ama day teggi bilaay Modou bu dul bu dul wax ci nii nii su ngeen wéetee bu leen jaaree foofu ngay jaaree moom na ko ba ama ah, xam na li ma la wax déggoo ma la am maa ko fàttali jour maa ngi fàttali combat ban kan la moo doon préparé sax isaapu yi ba Modou man la Modou hmm, maîtrise yaa kii super jamono def naa Baye Pël waaw am yeneen yeneen gaaraay yu ma jàppatul mhm. ñoo nekk ko jour montagne yi fii nii côté Niayes ba boobu Euh, euh, euh, góor gi mu mel ni tam dañuy ñëwaat ci biir combat bi ba léegi mu mel ni ki nga xam ne moo di Ama Baldé tax dëggal na boppam dëggal na boppam nee na Modou moo ko def mbër seen mba seen combat bi ñu dajee woon Modou Lo daan ko ci mbapat boobu nee na Modou Lo yaa ma def mbër mais bu bës baa moom bu arbitre bi sifflé fexe rek ba bul arrière. waaw ma xamal ne la Ama mbër mu mën na mbër mu fonk la nag bu def si yàlla du ma ko minimiser benn côté. mbir moo respecté la tamit dëgg si yàlla quoi du mais dama la waxal ne làmb du wax rek jëf bi moo ëpp wax ji làmb yi wallaahi si du wax rek bisu at bi tey tëyee barrière ñoo xam ne waaye waaye am na de. mais góor gi wóolu ngeen seen bopp de amaa moom fi mu teg boppam actuellement fi mu nekk nii ku taxaw ba ne leen carrément bu ma leen teelu na gis du def ci yéen mille francs mais góor wax wax wax bu doy waar na. si combat bi la waa lan waa Pikine di xam feebalu Ama Baldé. bul fàtte da ngeen a génne Pikine nag jël fa roi des arènes du gat bir pikin mais est-ce que tamit euh, loolu du enjeu bu doy waar du risque. ma ne la gën si combat bii. waa Pikine si li ñu xamee faayu Ama Baldé dëgg-dëgg man maa leen wax lii bu dee dimanche la lundi incha allah waa Pikine dina Ama mi du dara nekk de man maa ko wax ko takk téere bi mais mais mais mais yéen da ngeen a jàppoon benn moment Ama pareegul face to face bi nekkoon Gambie ñu bëri naan noo Ama pareegul Ama ni ñu ko xoolee peut-être entraînement mais attention Ama ko ko xam ne mu ngi en forme est-ce que loolu a ngi pare loolu moom la concerné mais li ñu concerné ñun man gëm Modou day toog di waxtaan toog di waxtaan ak jotaay di entraîné wallaahi zim Modou day toog si biir jotaay di waxtaan ñi sax maanaam dafa nekk loo xam ne moom bu ministre ba takkee cravate am taal kaat kaatam dem bureau Modou mi ngi taal otom takk jaaj yi dem dini mu ngi si saal yi mi ngi si dini mi ngi si ring box bi. est-ce que bul fàtte ni Ama ci biir wax wax naa la ko nee na ko nee na ko yow yaa ma def mbër daan bi mu ko daanoonoon ci mbapat boobee nee ko yaa ma def mbër kon xam nga ne kon léegi jàng na Modou Lo xamaat Modou Lo moo tax mu ñemee bëgg a jël Modou Lo Modou Lo tamit faw mu bàyyi loolu. Ama ba koy Modou daan Ama moom Modou fuuf grand déggu li lu waay di jaay le cinq dina lamb waa Pikine bu noon reer vingt et une heures nan nan nan ko boole def ko benn. est-ce que xam nga ni stade bi seen côté la nekk de damay ragal est-ce que waa parcelle dinañu am fi ñuy toog donc nee na ko amaa yee bi moo lay yëngal amaa yee bi ñuy wax nee na ko Modou lool moo lay déranger. xam nga benn affaire ku jaaxaaloog Bombardier jaaxaaloog Balla Gaye jaaxaaloog Eumeu Sène ah, kon Ama <laughs> lu lay déranger ah. mais coow coow coow coow Balla Gaye Modou moo ëpp coow Ama Baldé Modou Lo wallahi azim Modou bu ko lii nar a mu bàyyi làmb maa la wax lii damaa xam ne Modou bu ko Ama nar a dépassé ay Ama yi mu bàyyi làmb parce que yàlla gëm naa Modou Ama bëtam jéggi na sax leen lu Ama barke Rasulullah yow est-ce que gëm ni combat bi du yàgg yow est-ce que réellement man maa posé question boobu man damaa gëm ne du yàgg parce que Ama nee ko boo dëggalee sa bopp combat bi li ñuy ragal moom recul bi lay ragal saa xëy peut di diriger di def enjeu yu jàppee li ne mel mais nee ko boo taxawee dëggal sa bopp man damaa gëm ni combat bi fekkee ñoom ñaar ni ma leen gisee nii fekkee lii ñu wax ne moom carrément ne ay waxu mbër la nii rek wala bon stratégie la mais bu fekkee dañ ko dëggal moom góor gi est-ce que gëm nga ni a nekk combat bi gën a gaaw. Modou ban combat lañ mais moom dafa mel dafa jàpp ni saa waay day arrière moo tax mën a ko taxaw rek. ama ah, moo jàpp loolu. Ah, na boppam nag. <laughs> bi man ma bëgg-bëgg sax ñoom ñaar combat bi day yàgg tuuti ndax amateur kontaan ñu xam point fort kii point fort kii ñu uh-huh. dina xeex lu neex bëri lu neex mais gëm naa ama day daw xeex bi. Ah. Uh-huh. loolu foo ko teg góor gi ama day daw xeex ama ku ko xam tamit xam ne bagarreur la yow tam. Ama du xeex wallaay sim du xeex ah. Ama bu xeexee man maa leen ko takkal ko téere nga téye ko fii nii moo da koy doon mu daanu wallaay azim maa la ko wax ni Ama bis bu xeexee moo da koy dóor mu daanu. mais Ama yow xool nga ni côté bagaar dangeen ngeen bëgg a jàpp ne yéen ko gën a taxaw ci bagaar mais Ama ku ko xam-xam ne mbëru bagaareur la day xeex. Ama ba mbër la mos dóor mu daanu mos nga ko gis yow. mosoo ko gis de. mais mais mais Malick Niang xanaa da nga koo fàtte tam. non jour ba Malick Niang laa faraloon. mais mais xam Malick Niang ci côté bagaar moom da ngay dellu ginnaaw mais boobu gis nga amaali mu dëggalee boppam tamit. boo ma dégloo ma ne jour ba Malick Niang laa faraloon mais dama dem ba fin ma ma mere Malick Niang parce que sa doom sax boo ko daaxee ci moom laaxatu nga bàyyi ko kenn di ko humilier. maanaam Malick Niang dama ñëw ku kàkku ama dama lay wàccee karo yi mm-hmm. dégg bëggu moon bëggu naa ah ñu bëree xeex mais humilier yéen humiliation yi mu ko si làmb mais dama la bëgg xamal ne la bu dee wàllu bëri rek d'accord du duma ko soxla ren am na ci mais li nekk si yaram Modou wallahi azim nekkul si yaram ama grand man maa lay wax lii grand bu ñu jàppante di ngeen gis bëre bu neex bu ñu xeexee nag amaa du fam dara. kon yow léegi Modou loo wax da nga koo dëggal nekk ko su ma la du su ma la dóoree combat bi jeex su la jàppee combat bi geex déggoo li ma la toll tal fa tey an dalee loxo Modou bu dal si kanam Ama ay seen ay mbokkum lañ ko lii man maa leen ko wax bu dof doloo fi magam jaar ama seen si loxo Modou fu ko gën a garaaw lay jaar mais nag maa ngi lay wax ni enjeu boobu war ngeen ko bàyyi xel dugg Pikine jël roi des arènes dellu siwaat ci Ama Baldé te aman nag leneen lu leen fay xaaraat yéen moom fi ngeen dugg moom dama xamul temps yi moo tax ngeen singili waa Pikine quoi dèjà sax maa seetaan xuma Pape Sarr la xum nu koy waxteeti ma ma am nu ma ko jox daa ko sax moom ma ko parce ko dépassé si benn côté lu dee dee mag na ma soo doonee responsable daa am nooy waxee si làmb sien ma la ba dem maa ngi si làmb bi mu yox bay wax naa bàyyi nii ak nii làmb la day jeex suba Modou après ak Modou amam na tudd ay doom sien la kon noo xool koy defat ñu defar ko te mooy xool la yaax ñu koy indi si làmb ji baaxul parce que mag soo nekkee mag da nga joxe un bon exemple di wax wax ju rafet di def lu baax di wax lu baax di boole bañ ci tàggale mais bu fekkee wax jooju ni indi si kii bi d'accord lam mën nga koo jaay ak façon ba nga koo jaaye lam noobu la du xaay du xiiroo du ŋaayoo si am la day jeex suba ñu tasewaat si am la kon buy wax na xool la muy wax lan la parce que moo dafa am famille moom mu am fami ama am famille si am la mais loolu mu wax noonu tey bu dajoon waa passé bu daje feneen wax ko de day métti si kon loolu ko indi si làmb affaire de famille famille la yaa ngi làmb làmb la bu jeexee rek jeex na fi may daanalee góor gi yaakaar naa duñ la te lu yàgg mu mel ni tam yéen a ngi waajal seen yéen a ngi waajal seen combat euh, naka nga gisee actuellement euh, physique gu Modou Lo Modou Lo fu mu nekk nii dafa mel ni moom ni ma déggee keroog mu wax dafa mel ni moom pare na combat bi doon suba suba moom pare na. non Modou dafa yàgg pare moom dëgg si dafa yàgg pare la parce que moom nekkul ba am combat di entraîné déedéet Modou Ba amee combat mi ngi de xale la te yoon la mu won ko yoon bu dut naes bi si anuma la ma sam sam fils boobu bi moom tamit yàlla na ko defal ko si ndam ama mais est ce que xam nga laam kañ la doon neex yi su doon Balde boobu noonu ñu boole ko amee loo Modou Ama si benn jour nga xool ngeen xool ma leen wax si laam ngeen takk ko téere nga xam ne waa kër foofu foofu noonu duñ am dara si Modou lii man maa ko Euh, Pikine Pikine ñu ngi waaj mobilisation parcelle yi ngi waaj mu nekk enjeu bu doy waar ci stade ba euh, boo leen reppee man dama ne est-ce que waa parcelle supporter parcelle dañu am fi ñu toog parce que ñoo ngi dëkk zéro mètre euh, bu ñu yëngalee foofu yaakaar naa ni stade damay ragal est-ce que waa parcelle bu ñu toog. man sama koñ bu neexee yàlla suñu borom maa ngi woo sama grand frère la Diop yaa ngi la nan ñëw may ma ay blog bi fii nii ak car pour moo inte 5 gii rek. bëgg naa fi génne ma 10 cas di ko ñaanal Diop na ma ko may incha allahu rabbi waaw. góor gi li ngay tàggatoo waxtu bi dab nañu ñuy bég lool ci interview bi yaakaar naa ni euh, kër gi sa kër la jàmm ji info télé bi sa télé la euh, à tout moment bu ñu la yittewoo tam nga yombal ñi li ni mel lan ngay tàggatoo. waaw di la sant di la gërëm di di woo waa Kër Samba Kane sama dëkku papa euh, barki dem laa jógee dajoo sama yaay moo gaañu di ñaan yàll suñu borom yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana fa mu jóge gën a ko mu jógee ak ñam fa fekk ñëpp yàlla na leen sut fan ba yàggu toog di leen ñaana tamit di woo waa Casamance yëpp yaa ngi dégg bopp ba bopp cat ba cat yaa ngi dégg mu la waa parcelle unité 5 tamit na ñëpp parcelle 1 ba 26 na ñëpp jug combat bi bii mooy suñu combat ñun ñëpp Océane ma la kon na leen jug wane na waa parcelle ñu ngi fi dégg nga Pikine bu leen jàpp ne esaab seen biir kër la de ndax ngeen seen bopp de wallaahi azim ndax ngeen seen bopp aawaaye boo saabu di ngeen ko dégg de xarañ loolu ngeen dégg <laughs> waaw kon forever grand kontaan naa si yow yal na yàlla defal jàmm barke Seydina Mohamed waa jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu di ko jaale tam way juram ni ma ko waxee noonu la kër Samba Kane tam di ko jaal di jaal di ñaan yàlla suñu borom xaaree ko aljana ak mboolem ñu fay fekk euh, tam ni ma ko xee euh, diggante Modou Lo euh, Modou xarañ Lo ku leen xam seen diggante xam ne rek ni mag ak rakk la ku dem ba tuddee ko njaboot tam seen diggante du tay yàgg na kon ñu di ko ñaanal vraiment ci disponibilité bi nga xam ni saa ko jàmm jeen fu bu baax ci disponibilité yi ñu doon seetaat seen jotaay